Avec tout le respect que j'éprouve pour la politique sénégalaise, chers membre de la politique au Sénégal, à cause de la boulimie de gouverner, par l'opposition comme par le parti au pouvoir, le Sénégal va mal. Parce que le règne par l'âme est un art chez nous. Wala Macky Sall day arrêter processus de criminalisation des mouvements sociaux, de criminalisation des luttes sociales, de criminalisation des activistes et des politiciens. ñaar moo mën am dañuy teg ci suuf ndànk projet bi wala mu abal ñu Sall dégage. une situation cauchemardesque Sénégal une société animale presque car il y a la violence la tabasse le vol les cas d'émeute des disputes de nos politiciens. ne ci ñoom nga xam ne yàgg na maa menacé fu ne ñëw na tey essayé yàlla def na duma naa ko futti naa ko fekkewul sax euh, séance bi loolu gënaluma woon. ni ma ko waxee nii waaye loolu message rek bu ñu leen di envoyé parce que monopole de la violence kenn yoru ko te fii koo laal mën na la def lu ëpp loolu. Avec cette envergure, la gourmandise du pouvoir, l'indiscipline, l'incompétence et la manipulation des politiciens ont entraîné des jeunes rebelles, des jeunes rancuniers, des jeunes tueurs, des jeunes agresseurs et des jeunes malfaiteurs. Ousmane Sonko uh-huh. yabal ay nervi Assemblée nationale pour ñu attaqué ah ay député nervi la pour fu ko teg. suivis d'émeutes qui ont commis de la casse de nombreuses infrastructures nationales, la casse du goût éducatif, la pauvreté et le chômage. Et vous êtes les propres victimes. président Macky Sall daf fi bëgg a teg loi boo xamante ne yéen internautes yi dootu leen am droit bind si seen internet yi mais génn leen ngir yàlla xeex seen indépendance. loi d'urgence bu ñu dugg bu ñu indi en procédure d'urgence li kay faj mooy contre carré ko en urgence. donc soyez des hommes dignes et intègres de la politique réformez votre méthode et préservez la politique avec pleine de liberté pleine de démocratie. prennent de bonne gouvernance pour le développement du Sénégal. C'est la résistance partout à l'intérieur du pays, à l'extérieur, la Résistance, résistance, debout. Et sachez que sans la démocratie, il y aura toujours de l'animalité.